ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax di julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu tey ñu ngi fii si Medina Baye si barab bu nga xam bu ñu waxee jumaa ji rek fii la ñuy wax ndax mooy barab bu nga xam ne fii la ñuy tuddee wala di fi màggalee gën ji mbindéef muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nga xam ne Baye wax na ne moom léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw fukki weer ak juróom-ñett si liggéey boo xam ne si waajur alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma ñu koy nuy bu baax di ko ziare di ziare al imam cheikh Ahmad Ali Cissé mu jëloon liggéey boobu dénk ko doomam président Baye Ciss mu ut équipe boo xam ne ñoo koy jàppale équipe bi yëpp ngeen gis leen nit ñi doomu na Baye si njiital doomu Baye Niass cheikh Mouhamad Siraj Diin waaye si njiital suñu mag Seydi Aliou mu cheikh Ahmed Dam sama wet Thierno Diallo Babi bi Samb Moustapha Maye Cheikh Baye Oumou Bakary Moustapha Ndir mu nga xam ne moo fi nekk toujours di ragle barab bi ak mboolem ñoo xam ne rek ñu ngi si biir groupe bi ñoo nekkoon si gannaaw président Baye si di ko jàppale si liggéey bi ba lii yemb waaye nag liggéey boobu nag dinañ si gërëm bu baax presse bi ndax xibaar pour nit ñi jot ko il faut que am wax dëgg yàlla seen taxawaay si liggéey bi ñëpp a ngi koy rafetlu. rawatina ñun ñu nga xam ne ñoo nekk ci agence bi di liggéey ànd ak président Baye programme bi nag xam ngeen ko ba pare muy la 14 am bu ñuy dabaatal si ñun jookoo si xalifa bi te ndigal la ndigal moom bu ñëwee jëfee rek moo ciy war muy le 12 président Diomaye war fay ñëw waaye liggéey bii nii da leen gërëm nag taalibe baay ngi ci bu baax a baax a baax a baax a baax ndax lépp ñooma sëñ bi si jëm boobam Cheikh Mouhamadul Mahi mu ne moom mooy njiiti taalibe yi ndax moom doomu Baay Ñas la la jël liggéey bi dënk ko Baay Siis Baay Siis ku ko xam da nga xam ne Baay Ñas rek la bëgg taalibe Baay rek la doon si yaay ak si baay mboolem taalibe yi nag fu ñu mënti nekk si àddina bi ñoo buur gis ne liggéey bi jaar na yoon président Baye Ciss bu ñu jox ko moo jiitu wax naa bekk mu ne nekk na fii moom kenn 3 mois si xaalisam kenn fekk ko fi mu jigéen nag la ñëpp gis ne ah liggéey bi kon nekk dëgg la ñëpp buur di ñëw. di indi ciment di indi xeer di liggéey di def lu nekk ba mu yegg si fii mu yegg si kon ñëpp am mérite rawatina taalibe ngi Niass président Baye Ciss ñu lay ndokkeel bu baax beneen yoon ñun de dinañ la ndokkeel ndax ñoo nekk yow te xam neen lu xew fii lan la barab soo xamul lu fa xew pour nga wax fa du yomb waaye ñun ñu fi nekk di fi xëy suba ngoon guddeeg bëccëg xam neen lu xew fii lan la. si commencement liggéey bi dañ daan liggéey ba ngoon jot du ñu am lu ñu fayee dafay yónnee day to day ne leen kees ga la fa am jox leen ma ko ma fay ouvrier. kooku am na taxawaay bu rafet ñu ngi koy ñaanal yàlla si xidma bii mu xidma Baay ngees te koo xidma doo ko rëccu mukk yàlla bu mu ko rëccu yàlla na feeñ si moom feeñ si njabootam kon loolu moo nekkoon information bi pour ubbi wan leen ne leen liggéey bii ñu oowoon leen kilo ba ñu koy pose fii si weeru koor bi tey moo yegg si fi mu yegg te sànq si ginnaaw maa ngi dégg sama mag sa daal si mu ne laata ñuy pose Baay Siis liggéey na loo xam ne ay million moo si dem kon nag liggéey boobu mu dañuy jox rek suñ mag Seydi Ali wax su paree président Baye Cissé wax détails yi ndax mooy kilifa gu nga xam ne liggéey bi moom leen ko jox moom mën a wax lan ak lan ak lan ak lan mooy liggéey bi ndax loo xam-xam xam-xam mbir ku ko xam ne moo ko jiite nag moo la ko gën a xam kon am na kàddu yoo xam ne ñun duñ ko wax moom moo koy wax ndax moo ko xam Seydou Aliou suñu mag la bu fi nekkoon laata may commencé moom mooy def waaye gannaaw dafa nekkoon si ay ittee su ñëwee moom lañ jox mu ubbi président Baye su pré Baye moom tamit mu daal di wax lu mu war a wax ñëpp dégg ndar ko ñu ngi santaat ñëpp beneen yoon di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa barakaatu. Euh, bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di jégleen nuyoo journaliste yi di nuyu sëriñ bi di nuyu imam di nuyu président Baye Ciss di nuyu membre agence des grands travaux ñi teew ak ñi teewul ñëpp daanaka li ñu waroon wax yëpp suñu rakk si Mouhamad Taïb wax na ko. ndax euh, euh, lim xam ci agence bi rek lañ ci xam te ñun ñi nga xam ne ñoo féetewu wax tam ñeneen ñi nga xam ne féetewuñu wax ñooñu gën a xam mais dañ ñu yabal rek pour ñuy wax ndax li ñuy wax seen jëf la ñuy wax ñoom euh, ba tax na dañ leen di gërëm ñoom ñëpp waa agence bi membre yi ci nekk yëpp mais ci njiital promoteur bi nga xam ne tey liggéey bu màgg bi

domaine boobu duñ ci dugg comme ni ko site tey waxee ñun ci li ñuy dugg rek mooy suñ partenaires yi nga xam ne jàppale nañ ñu bi ñuy joxee liggéey bi muy waa dëkk bi d'abord di taalibe Baay Ñas di yéen journalistes yi di képp koo xam ne nag am nga soppe ci sëriñ bi def nga ci sa alal def nga ci sa doole am na jour yoo xam ne ñaan nañ liggéey nit ñuy jugee ko fu nekk jugee ko ci biir réew mi ba am yoo xam ne dañoo jugee ci bitim réew mi sax ñëw jàpp ci coulage boobu ndax dañoo gis ne travail liggéeyal Baye la boo xam ne liggéey collectif la kenn ku nekk yaa ngi sa ruq di liggéeyal Baye mais liggéey boo xam ne ñëpp ko bokk bu collectif yaakaar naa ne ñu ngi koy door a amaat ci esplanade bi moo tax mag ñi ngeen gisoon ñuy ñëw mage lool mu ne daf leen ñu ne dañ leen di fàttali bu Baye oote waan toolam ca kër Ayre ñoom gis-gis boobu lañ ci am ku mel ni suñ Baye Baram Awa keroog loolu la fi wax kon nag euh, aspect technique bi promoteur bi dana ci dugg mais ñun li ñuy dugg rek mooy gërëm suñu partenaires yi ñu doon jàppale lu naan à l'unanimité taalibe yi ak euh, bonne volonté yi ak ñi nekkul taalibe itam parce que am na ñu ci jàpp ñoo xam ne tey waa Kaolack lañ ay defkati yu baax lañ am ñoo xam ne waa Sénégal lañ ay defkati yu baax lañ gis ne lii nii liggéeyal yonantu bi la liggéeyal bàyyi ngi si ñu yëkkati seen alal def ci ñooñu amel nañ leen ngërëm amel nañ waa agence bi itam ngërëm li nga xam ne tey bàyyi siis wéetut ndax bu gëstoon gisul kenn dana mais bi mu taxawee gis na waa Béthiaoui gën ko gën a bëgg liggéey bi poussé ko di ko encouragé moom itam bu amutoon xol bu yaatu liggéey bii dana jafe lool mais xol bu yaatu ak esprit duvertir bi mu am moo tax te yàlla may ko mu réaliser lii duñ jeexal mukk te gërëm gërëmuñ leen yéen journalistes yi parce que vraiment am na fu yëf yi àgg yéen yéen a ko fa àggale ñun mënuñ ko faa àggale ñu ngi leen gërëm bu baax di bàyyi président rek mu dugg ci aspect technique bi bu ngeen amee yeneen question bu ngeen ñu ko laajee incha allah dinañ ci dellusi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp gannaaw bu ñu ziyaara euh, xalif Cheikh Mahi ñas teg ci suñ sëriñ imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di nuyu waa pays bi yëpp di nuyu waa dëkk bi yëpp di am mbégte di jàkkaarloo wat ak yéen ndaxte yaakaar suñu premier coup de pioche fi ci tribune bu njëkk bi nekkoon fi defoon nañ conférence de presse pour démarrer chantier au grand travaux légui nak nag buñ demee ba infrastructure bi nga xamné mom moom lañ njëkk a ñu wara wax waxu inauguration dama gis né dafa jaadu yeen ñi nga xamné yeen lañ fi nekkalon yéen yi nga xam ne nii yéen lañ àndaloon yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon jàppale ñu defal leen le point parce que nag lu sotti am borom. Mhm. lu sotti ñëpp bokk ko waaye dafa am ñoo xam ne nii démb ñoom lañ àndaloon ba yegg si fii tey donc muy yéen ñii nekk fii tey ñu ne woon ah nañ toog ak yéen.

Ce qui est important pour moi, c'est un remerciement. Remerciement à votre endroit. C'est à Hawaï. Parce que comme nous ne pouvons pas faire, nous avons fait, nous avons fait, mais nous persévérons, nous avons fait, nous avons fait. Donc, je me suis dit, nous avons fait, nous avons fait, comme information bi Ibrahima ngay joxe chef d'état day ñew su ñëwee xalif bi daf ne fi la bëggu ñu recevoir rek kon yeen yéenay suñu ay partenaires may insister rek ci côté remerciement vous très chaleureusement à votre endroit pour wax né véritablement sans yeen kon liggéey bi du dem mm. parce que ñi nekk au fin fond du monde ñom xamuñu lu xew fi lu dul ñu taal sen réseaux sociaux yi di suivre en direct diko xol di xam li xew fi lu Sidi Taïb sànni ñi ci dess yëpp relayer ko àddina yëpp diko ko gis kon nak buñ demee ba yegg fi da fay bax ñu réserver leen primeur bi dafa ak yeen tour expliquer leen liñ fi nar def ak fiñ ñu ci liggéey bi ak lan mo ci dess yoyep yëpp su ko ngeen xam ko parce que yéen a ngi fi woon ci départ ba xam lépp kon suñu yexé fi tay suñ leen waxul lépp it di ngeen xam né amna lu dess parce que xamone ngeen lépp démb ba paré bon donc du coup motax ñu né nañ leen toog ñu waxtaan ci organisation le 12 et le 14 xam ngeen né fii nii yaakaar les derniers chiffres lim ñu coûté dinañ ko am fii demain ou après demain parce que les experts nous ngi des ci chiffres parce que on a commis des experts agréés près les tribunaux les grands tribunaux de Dakar pour nous ñëw def seen ay relevé def seen expertise on ne peut pas être juge et partie mm-hmm. ma il rek génn rek chiffres Je yooyu dama koy professionnalisme, indi ay experts yo xamné tribunaux agréés. Nous avons nga xamné luñu génn téré la su ko défé ñoo nañ fi ba paré ñu def Sénégal donc pa ko du tout. euh borom ci mm-hmm. wala mm-hmm. bon donc su génné dañ jox des chiffres d'ici le 14 en tout cas mais xamna né comme nous avons sorti 1 milliard 4 diko sorti su 1 milliard 5 donc et Lolo, si je Lolo. le prix coûtant peut-être expert bi dina indi Lolo. parce que je day calculer ne su a entreprise moo koy defar jar limi coûter lañuy parce que c'est entreprise na ci am bénéfice xana du pour nos beaux yeux matériel danañ ko fay dana ko fay et cetera et cetera ñun nak prix coûtant lañuy wax moy loo xam ne kenn amu ci dara moy loo xam ni dafa ñëw rek dugg ci biir donc man mo chiffre bobu lay wax mais li expert yi wax ñom peut-être il va falloir que ñu expliquer lolu pour wax né li moy lim wara jar normalement moy valeur infrastructure mais nous ñun li parce que matériel bi fayul parce que amuñ marge bénéficiaire parce que parce que mais véritablement le coût normal de l'infrastructure et de temps buñ joggé ci lolu yaakaar naa l'idée dé de lañ programmé woon ci départ donc amul changement ci biir intérieur bi donc climatisation bi Au départ, on avait prévu climatisation ci kaw cassette pour muy wàcc mais bi ñu demee ba Chine on s'est rendu compte que suñ ko naree fabriquer période de fabrication de production bi ak période de transport bi ak période de transport bi day jël temps du si à temps gis ngeen ba léegi ñu ngi installé climatiseurs yi pareegul donc du coup euh, on a préféré en tout cas jënd armoire yi installé ko su gàmm gi passé on verra si dañuy ñëwaat ak cassette ou pas wala dinañ koy bàyyi si les gens sont contents avec ça on reste comme ça parce que mi ngi sedd seddaay la bon donc loolu rek moo fi différence donc du point de vue Euh... Chikaou... Amonna, Amna... Euh... premier étage premier étage il était prévu de faire 18 avec une salle de banquet un ascenseur bu mais comme il a fait un ça a pris beaucoup d'énergie ça a pris trop d'argent Khalif mouné léegi loolu li ñuy inauguré ak li amal nit ñi njëriñ mooy fii ci suuf mooy esplanade bi la ñuy li ci des suñ paree suñ ko defaree loolu ay dëkkuwaay loo xam ne ni ça n'intéresse personne donc après gàmmu effectivement dinañ ko defar am na ñuy wax ne ok ci biti fii dañ ko def tente côté yi ci el yi am na ñuy wax ne nañ def euh, protection en fer ci bi baie vitrée yi pour mu bañ a toj yooyu yëpp

refléter la réalité de ce En fait, si vous parlez de ce que je veux dire, expliquer ce que de avez Du point de vue capacité, nous avons de 9 à 10 000 personnes assises sur le souffle. Sur des chaises, nous avons 5 à 6 000 chaises. Nous avons installé près de 4 000. am na 2000 wala 3000 yu des tax fële yi ci gannaaw yëpp feesagul su ngeen gisee ñu defee ko nii c'est parce que ñun ñoo def benn dispositif réglementaire mooy moo am ay couloir moo am ay espace nit ñi mën di dem di ñëw kenn du ne may ma ma jàll soo ñëwee mën nga jàll ci digg bi dem loolu mooy distance réglementaire yi mais suñ ko bëggoon sol mën nañ ci def 6000 7000 chaises fii ak ci kaw gis nga ci kaw. aussi dañ ko def mu réglementaire ba nga xam ne suñu waxee VIP VIP dafa nekk foo xam ne kilifa yi suñ fa toogee duñu duñ buuxanteeg ñëpp kon nekkatul VIP donc véritablement loolu mooy li ngeen gis nii liñ jëndi woon Chine gis ngeen chaise yaa ngi nii climatisation yaa ngi nii lampe yaa ngi nii su technicien bi peut-être balaa ñuy dem technicien bi dina ñëw mu teg sono bi ngeen dégg pour que en tout cas su ngeen ñëwee le 14 di ngeen mën a nit ñi dinañ mën a def seen liggéey tranquillement sans pour temps ñu nekk di jël ay image parce su ngeen jëlee lépp tey rek ñi li ci ëpp mi sàll mi mën na toog këram di def direct parce que dama koo gis ñuy def fundraising ku nekk li ma oo naan maa ngi koy ci et fi ngi koy seetaan ci réseau bi maa ngi koy ci réseau bi maa ngi ci réseau bi après j'ai demandé comment ça se fait ñu non noonu dañu dañuy jël signal rek après c'est fini c'est pour dire que eh, dama len owoon tey pour que vous vous appropriez li ngeen mom ñoko bok le jour le journaliste c'est un manteau bu ngeen di sol mais su ngeen génnee on est ensemble on est en famille té ñi ngeen ci bok

les grands travaux vont continuer après lui Moui jumaa Moui Fenen y Fenen feneen foofu continuer donc Benen bi nous ñu le 14 le 14 euh, xam nañ je pense que qui pose des questions aux journalistes Fini peut-être nek fi au début parce que depuis def nañ fi ay conférence de presse bañ woné emplacement aux journaliste su ngeen gisee forme euh, ak euh esplanade bi tribune bi pour journalistes yi moo ñu def ko dañ bëggoon ren ken du wax né journaliste yi moo tax gisuñu ñu ngi ñu ñuy na journaliste top ne li ne la parce que su ngeen xasee ba taxaw ku toog it foo munti toon di nga seet esplanade bi ci kaw parce que loolu moo leen intéressé ñoom man fi ma toog nii su ma xoolee hauteur esplanade bi lu ngeen taxaw taxaw taxaw su xalif bi toogee ci kaw chaise bi dama koy seen donc ay prise ak yëpp nga fa yuñ préparé pour les journalistes c'est pour dire donc que ci biir architecture bi dañ ci programmer waale journaliste maintenant nag dara matul s'il y a des choses à parfaire après si nous pas nous nous parfaire parce que y y fi nekkal ku à travers président commission communication Ibrahim muy Ibrahima Gaye donc nous revenir avec toutes les doléances à ah, ñu y indi ligne spécialisée pour Wi-Fi pour que les gens puissent se connecter en temps réel donc xalaat nañ boole nañ intégré nañu lépp luy journaliste yi ci biir projet bi te fuñ projet bu mun di commencé tamit noonu lay demee rek dootuñu wax benn journaliste toppal fii wala fee wala fële foofu yëpp bëggoon nañ ko def bam suñu def ko chaise ba mu fees mais soo xoolee de part et d'autre dama bàyyi foofu pour que vous soyez à l'aise mais nag comme j'ai dit au président mais il faut une solution au nom de, du comité au nom de l'agence des grands travaux président ñi nous remercions remercions remercier président commission bi muy Nous, ñun presse duñ ci wax duñ ci décider dara parce que décision collégiale parce que taxawaay bi mu ci taxaw ak relais yi ci def relais yi ci am etc etc donc ba ci ñëw Pape Alé Niang qui tient à venir pour changer parce que indi beneen politique bu bees ci biir RTS li ñu meroon na yëpp dem jubóog ñoom

musu fi am bu fa jógee ñëw nekk sama gan parce que dans une autre vie ay ay xarit lañu donc su fa jógee suñu añee ba pare mu dem seeti ziare ji imam Cheikh su fa jógee dem ziare ji xalif bi musu fi am kon véritablement je pense aussi que c'est noble de sa part parce que dina rehausser di ngeen mën a waxtaan ak moom aussi si ci seen métier ci seen liggéey ci seen seen seen moom duñ ko xoolee RTS dañ koy xoolee état parce que croix de transmission la ak état te ñu waxante dëgg fam ñuy bëri ñoo xam ne dañuy ñëw mais y a pas de rendu derrière amul rendu y de rendu man ça m'est arrivé à plusieurs reprises que ñu jox ma liste bu toll fii ba fële mais après soo soo xoolee ñi génne dara. bon je sax la moitié bon donc ñu ne suñ nous lu mel mu rafet ba fait nous bëgg mu organiser wu ba nga ne amul accrédité li des ku bëgg dina signal pour logo parce que n'a ko le li ci

du pour lenen c'est pour organiser les ba nga professionnels en tout cas ñu ngi dinañ fi ce jour-là nous liste bo xamné ni ñu doon liggéeyal en permanence dinañ leen décorer fi sen ñuy sommes ay ñuy ay collègues parce que nous sommes ci mbir mi c'est pour vous dire que nous sommes assez reconnaissants par rapport à ñenn devant tout le monde c'est pour vous dire que peut-être nous sax bokku nañ ci en reconnaissance de avant tay avant bis bi am ñu am véritablement mu liggéey nañ nous... bu mucc ayib donc loolu lañuy lu waxoon il faut que ñu expliquer ko ñun ci suñ biir su ko defee gay defar na ay gilet presse yo xamné ni ñim accrédité dina leen ko jox pour ñu xamé leen parce que ce jour-là yaakaar naa ne sécurité bi dina yëg à un summum bo xamné ni il faut qu'on puisse les identifier suñ leen mënul identifier duñu dugg parce que police bi instruction yi ñu leen jox en amont ca kaw la ñuy commencer filtrer bon te su boobaa duñ bëgg véritablement ...euh... muy am problème bon donc je pense que ci gàttal. Mm-hmm. su ma fàttewul dara. Euh, loolu moo nekkoon le principal euh, objet conférence de presse bi li ci des mooy euh, euh, place su presse yakarna lolou lañ mën won su ngeen gisee feulé na la ci gannaaw aussi di ngeen giss régie son bi peut-être que dañ wax na ren am nañ régie son ci biti ak ci biir ak ci biti parce que ci biti am na ay haut-parleur longue portée et cetera pour l'extérieur bon Moussa Mbaye donc euh, su déwéné peut-être ñu am régie télé <laughs> qui sait c'est-à-dire, on va évoluer avec vous pour que du point de vue euh, euh, salle de presse bi programmé woon mais ci kaw lañ ko programmé donc fii ak déwén dina fekk salle de presse bi pare ba nga xam ne ñun ñu ci bëri li ñuy wax naan tey kuy jël signal ak yooyu ca kaw nga koy jëlee ngay toog ci kaw de jël sa signal toog euh, bien comme il faut comme niñ koy fait à travers le monde entier bon donc nous yëpp dañ ensemble en collaboration avec euh, direction commission communication mais rien maintenant parce que euh, lu bëri ou. la salle de presse mais surtout là. parce que salle de presse vous su pare donc nous n'y pas pas problème mais les choses sont benn c'est xanaa li ñuy def de xaar je vous remercie et je suis à votre disposition